ci waa Caaroy jàmm gën gis na coono bi ñuy dund su ndox mi xasee ñëw fi mu nekk nii doomu aadama dootu fi wérati ñun ñëpp dañoo tànk ba suñu wet yi di metti mbedd yi amul canal amul dara mu ngi salte xale yi ku génn dugg dañuy jël ordre sewel di sotti même néeg yi dafa am ndox ñu am fenn fuñ tëdd fii yëpp di fees ak néeg ci kii douche yi amuñu fenn foo xam ne nit mën na faa sangu wala nit mën na faa dugg toilette pour dara te sonn nañ ku ñu dimbale daal ñu jël moom lañ bëgg at mu nekk ñu wax nag te duñ gis dara. waaw ah, monsieur teel ma wax ak yéen seen génération parce que askan wi dañoo sonn ah ñu a dee waaw parce que Sénégal nooy mën a ay tali te doo mën a defar ay canal waaw benn instant euh, suñu génn sax su may génn damay am problème parce que benn jour maay génn ànd sama mag bi di xuus waaw xam yombul ah benn instant tamit am doom kii am doom tey Sénégal kii am doom tey da xuus waaw. da am jafe-jafe pour am oto da am lu la génn koñ bi pour nga mën a dem ci tali bi waaw ñu war tax waaw dafa jot tamit benn instant pour ñu bàyyi xel euh, handicapé yi tamit waaw ndax benn instant comme boo génn nii soo génn euh, bis oto boo arrêté oto boo arrêté mu bañ waaw oto boo arrêté mu bañ parce que ñoom dañuy yaakaar dañuy yaakaar ni yow xam nga da nga yàqanti quoi yow mi handicapé da nga yàqanti mais bis yi dañuy wax ne ñoom ñoo gën a yàqanti handicapé yi ba oto bis ba arrêté da lay romb si si ci man Gorotin laa tudd. Thiaré gaar am dalay kat waaw jafe-jafe ndox mi moom nekk ci ay problème rek guddi ak bëccëg mënut ñoo liggéey bàyyi nañ suñu liggéey ndax ndox mi ñun bàyyi suñu liggéey ñun ndax ndox mi guddi ak bëccëg ñi ngi fii ci ndox mi ndax gisuñu maire dafa mel ni ñun amuñu maire. commune Thiaré Gare bokk commune Sicap Mbao mais ñun côté bokk commune Sicap Mbao ñun yëguñu suñu bopp ci ndóof. pompe yaa ngi nii cinq pompe lañ jënd cinq pompe yi benn bu ñu ko jëndee cinquante cinq mille jënd suñuy raakool raakool bu nekk quinze mille raakool yi bind jënd nañ presque vingt raakool maintenant secteur bi nga dugg nii ku fi soxla pompe ñoo ko koy awal ku fi soxla raakool ñoo amul benn yoon bu meer ñëw fii nañu sax jërë ngeen jëf ñun gisuñu ko côté bi mu dëkk nag moom am na mais ñun côté bi ñu dëkk ñun gisaguñ ko fi ah man man loolu laa gis kenn ku ne la ak leen gis mais man loolu laa gis. bari ki démb la fi indi pokolin gas ndox mi ma ngeen ne leen gis nga ne boo ko xoolee gas du gasu dara waxee la rek mën naa ne. ñu jox ko dossier bi mu fay nu cinq milliards moom Abdoulaye Wade nu séddoo ko ci li ma lay wax teg naa sama bët ñaar ñoo xam ne seen xaalis wàcce nañ ci taxi bu bés pour seen xaalis yaa ngi dégg restant baa ngeeg Macky nangu wu noo fay moo nu ameel noonu amee luñ ko mais noonu nangu wu fay. defalul nag dara ci koñ bii koñ bii nu dëkk nii Macky defalul fi ñaari salaamaaleykum li soxla nag mooy comme wax na ne day def kanaal canal c'est trop tard xanaa nawet bi mënul def kanaal noor bi yëpp bu ñu waxee mu a kanaal canal kanaal année année kañ la kañ la kanaal bi ñëw xanaa xanaa bu jeexalee woo ci ko fi bokk man wax naa leen ni leen ki nuy fay suñu xaalis bii xanaa beneen président de waaye Macky mii duñu fay duñu fay lu tax ñu def moom dix fois tribunal nangu noo fay loolu tax nangu noo fay duñu fay. Macky duñu ko fay nanu fay sunu xaaj bi soxla nanu ko ay boroomi famille lanu soxna yi yëpp ñu ñu si bari seen kër tas na seen i soxna yi feebar nañu seen i doom feebar am amuñu dërëm lu ñu lekk. pompe baa ngi nii mi ngi nii ñooy cotisé jël ko seen bopp xam nga kooku nag dëgg-dëgg doy na waar bu fekkee daa dem ba mënul kay na bàyyi ñeneen ñëw boog ne dimbali waay Macky Sall dafa tële loolu lañu ba bañ dafa tële de gars yi maanaam yëpp ñoom seen yoon lu ne la ñuy def lu leen neex la def lu leen neex nag la ñuy def te du mujj fenn xam nga kooku amul njëriñ. xaalis jënd suñuy pompe on a cinq pompes ici juróomi pompe ñoo ko jëndal suñu xaalisu bopp yaa ngi dégg bu tawee balaa ndox mi sebet ñu génn kenn ku nekk benn pompe bu nekk ñu ko jëndee cinquante cinq mille waaw raaxul yi vingt yu nekk ñu ñu koy jaayee vingt quinze mille franc waaw vingt yu nekk ñu corriger ko. jënd ko bu taw bi sebetee bu la même bu guddi la bu sebetee parce que fii amul yoon benn mbedd la fii ay kër fi nekkoon ñu dagg ko yaatal ko ne dañ fi def canal xam nga lu ma la wax léegi nag depuis 2007 lañ fi toxaloon kër yi nekkoon fii waaw ñun sax suñu kër laal nañ ko yaa ngi dégg depuis loolu canal amu fi ñun canal sax lañ gën bëgg ka tali boo amee tali moom boo amee canal ndox bi di dem ñëpp kenn ku nekk boo tëddee di nga nelaw mais bu taw guddi doo doo doo mën a nelaw waaw suñu kër yëpp xam nga mbedd yi da koo sut xam nga la dañuy kenn ku nekk am na ñoo xam duñ fi nekk dangay jóg ñëw talal raaxol yi xam nga ñu naan la yow kese yaa fi nekk doo xam nga waaw doo mën a doo mën a seetaan daal. mbetteel na mbett nanu nag man nag man sax la sama waa kër gën a mere ndax nee nan ma yaa woteel Macky gone gu ne a wutal ko dentité te Macky ngi defalu nu dara dara la nu Macky defalu nag ci nu jaaroy gaa ngi yàqu bay bëgg a de man ba may ñëw jaaroy fukki at ak ñaar laa am waaye nii jaaroy mel léegi kenn du ma ko gaa ngi télé baa nga yaa nga ne télé baa nga ne kuwaa foos baa nga dégg nga ma nga nee ca mbarit ma xoolal néeg yi néeg yëpp a ngi nii sunu mat la yaa ngi nii dara amuñu ko noo ngi nii ku nu jàppale nag nu sant ñun ku nu jàppale doo nga la nu bëgg. ñun ba midi ñun amuñu fu ñu jaar ba dem jënd ndékki danoo mujj dina gasal mbedd yi xale yu góor yi dugg ci kër yi di wiide ndox mi pour nit ñi mën a am fu jaar sunu doom yi nanguwul leen a wàcc sunu lal yi sunu néeg sax dafa am ndox gën day bal day ball day bal ba pare bu nu ba pare day ñëwaat. nu ñu taxaw nu teem dina bëgg rey lu ne nu dugg ca commencé nuy tali tali bi ñaari saako eh, biton lañ ci def une tali ba yàqu defalu nu ay canal ñun caaro daal ñun daal wu ñu ci nit ñi daal caaro am da laay kaat bokkuñu ci nit ñi ñun moom boolewul ñu ci caaro ñun moom bokkuñu ci dara amuñu dara bëgg nañ ay kanaal bëgg nañ ku nu defara suñu gox yi amuñu ay làmp lampe amuñu dara sunu doom yi liggéeyuñu ñëpp a ngi ni di wër di taxawaalu ñun daal boolewul ñu ci dara daal te ñun bu élection yi jotee dañuy wate dañ leen di sànnil kaat bëgg Marème Faye Sall bëgg Macky Sall waaye dara. man maa ngi dëkk fii depuis 1977 fi soo mosaan jël oto pour bëgg mu indi la fi sax oto bi du nangoo ñëw fii nag jëlee woon nañ fi ay kër pour ubbul ñu ay voies léegi nag bi ñu ubbee yoon bi boobu ba léegi ñuy ñaan maire pour ndimbal xam mën nañ na am na sax moom mënu ko def waaye mën naa jaar ci moom mu dimbaluñ ci ñun fi ak station pomp bi motu sax 100 mètres waaye nag dañoo gis na ñun dañoo faalewul ci dara. fii ñu bëri xale yi fi nekk koo ne kii mooy maire xamul kan mooy maire moom xamul fi soo ko waxee du ko xam te li féeteeg fee mu dëkk ne ca këram moo gën a sori station bi te foofu def nañ fa ay canal mu duñu romb di dem dañoo bëgg ku ñu dimbali ci ndox mi gis nga ndox mi nii mu mel sama ginnaaw soxla amatuñu fu ñu jaar fii voie centrale la waaw moo fël moo jóge fii ci magasin gaz jëm tëli karaw yomb naa defar amul benn jàdd jàdd ku ñu fi dugalal ay tuyaux même bu fekkee dañ ñëw pour ñu def participation sax ñu def ko ndax ñu ngi fi am suñu GIE di defar suñu titre foncier te nit ñaa ngi ciy doxal liñ ci woon kon nag ñun nañu dimbale ci ndox mi ngi yàllaa yonent bi jéggi gi ñu fiy jéggi ñun maire xamuñu ko tey xamuñu ko ëllëg. nu wutalee ay canal ndax kanaal yi ban nu ko diggee yàgg na te dara dikkul waaw dara dikkul ñu dimbali ñu rek wutal ñu ay canal ngir yàllaa yonent ba waaw rek bu ko def ah, waaw ah jafe-jafe la kay xam nga ni jafe-jafe la te góor nekkul ci kër gi man rek maa fi nekk ak sama ñaari doomu jigéen ak sama rakk jee sama rakk jigéen jee ah ndox mi ñëw kan mooy bàyyi këram ñëw di la dimbali kan mooy bàyyi këram ñëw di la dimbali ah, man de wax dëgg yàlla su ma waxalee yàlla te yàlla tax ndoofee na nga may dimbali dajul su wax ndax damay wax rek yàlla tax ndoofu ban wax dëgg yàlla mi ngi may dimbali